Quel match, quel match. Oh la Guinée, la Guinée a gagné. Guinée Conakry gagné na kookee di Guinée équatoriale oh là quel match salaam gars yi bëgg naa leen nuyu ku ci nekk seen ab ak seen ab sant match bi métti na yëngu na seere na mais finalement Guinée Conakry sunu voisin ñoo mujjee gagné match bi par la marque de un but à zéro bii génnee xel dernière minute dem jëli ji li ñu am carrément mu ngi noone qualifié na ñoom ci quart de finale bi nga xam ne euh, moom lañ nekk ni ci Coupe d'Afrique des Nations mu doon match boo ne nii Guinée équatoriale dafa am rouge à la soixante-dix euh, ci noonee nag loolu bokk na ci li leen yokk sonal mais tamit Guinée yi dañoo am ay joueurs yu Bayo mu ngi tuddee la Messi euh, Guinée moom yi ñëw délivrer leen ci dernière minute à la quatre-vingt-dixième minute jëm kaw et mu doon match boo xam ne nii Guinée équatoriale dañoo doon ba benn moment di simuler di daanu di rey temps yàlla nag nattu leen kookii di Guinée Conakry tay leen toqal leen benn bi mu ngi noonu ngeen xamee ko noonu gars yi léegi ne félicitations pour seen victoire mu ngi noonu gars yi képp xam ne nag da nga bëgg iPhone de marque qualité tegu ci temps da ngay contacter di Sam Global Business ci numéro bi mu ngi foofee ca en face Robinet Séeréer fi ñuy defee vidéo situation oblige nag yoon bi fi ñu fekk la et tout Sénégal mooy loolu dëkkuñu fi mais on gère xibaar yi moom dañ leen ko jox à temps rek jàmm ci yéen gaay yi ba beneen yoon ci yeneen vidéo merci à vous. So Thank you. gagné waaw du ko dugal waaye yaa gagné ok. non mu ngi nii mu ngi nii eh, Seex boo ko si Seex boo ko si génnal. yes. C'est bon les gars. jàmbaar dugalal photo bi. dugalal photo bi waaw ñun kese. est-ce que da nga koy dugal. bu bu dugal si yàqu de bu bu tàggee si yàqu de dafa perte. waaw bàyyi la mu dugg bàyyi la mu dugg. Serrou Serrou Serrou s'il te plaît s'il te plaît. eh laay yow rek laay topp. laay di wax. mais waa ji te plaît ñaaco iso jaajëf Sadio Mané Sadio Sadio Sadio ñaaco Mané Mané Mané Al Nassr s'il te plaît mais Pape Pape viens me dropper ça

C'est bon les gars. jàmbaar dugalal photo bi. dugalal photo bi waaw ñun kese la. est-ce que daal lañ koy dugal. bu dugal Cheikhou de bu bu tàggee Cheikhou de dafa perte. waaw bàyyi la mu dugg bàyyi la mu dugg. 2010. déggu ma 2010 léegi kon benn crépé la ñuy njëkk a dégg à part avant yow. <laughs> <laughs> waaw. indi oto non non Sa Thiès moom indi fii mais Amadou moo doon gis dafa dafa dafa dafa dafa naan tànk mu ngi ñëw waaw waaw maa ngi xool xam xaal situation bi ba xam euh, comment dirais-je damay dem fële ou pas xoolal ba xam damay dem fële bu may demul fële ma def la suñu avant rek